moom mi fi nekkoon ci jamono njiital jëwriñ di Aminata Touré mayul dara njiitu réew mi Macky Sall gannaaw ba mu doon dalal maire signataire yi nga xam ne dañuy amal ab pétition ngir xeex ñetteelu mandaaw Macky Sall ci gis-gisu Aminata Touré mu ne nit ki ngir mu doon nit faaw mu sàmm kàddoom teg ci itam sàmm li nga xam ne moom la charte réew mi teg te loolee di gën a jëmmal wàllum démocratie ci Sénégal te loolee di gën a jëmmal wàllum démocratie ci ci jamono jamu dellu see ci màkkatal mu karam ci ëllëgub tabaski ñu doon xaar ngir mu yëkkati boo xam ne kon dal lay indi woon bakkan yu bëri rot ci waaye moom njiitu réew mi dafa mel ni ku jàmmaarloog ay way defkatu ñaawteef woote fitna buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati ni ki benn fan peerub sulet atum 2023 loole nag Aminata Touré gis ne kon luy nasaxal wàllum démocratie la rawatina ñi koy xeex nekk ci Sénégal ak ci diaspora bi yëpp leneen lu mu yëkkati ci ay kàddu moom Aminata Touré moo di moom njiitu réew mi Macky sàll dafa jàppe ay dof ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi taxaw naan i sàll mën na amal ñetteelug mandat. ci atum 2016 moom njiitu réew mi Macky sàll moo xam woon ne tëj na chartum réew mi loolee day indi rek kon wàllum xiiroo ŋaayoo dootul am ci lu ñeel wàllug mandat yu tegloo buñ sukkandikoo ci article 27 bu constitution bi lañ ci wax moo di nit mënta def ñaari mandat yu tegloo. buñ sukkandikoo ci article 27 bu constitution bi la mu xamle moo di nit mënta def lu ëpp ñaari mandat yu tegloo ñetti at gannaaw loole moom njiitu réew mi i sàll moo daal di woon xamle ne bés bu ñu ko tabbee ci atum 2019 nañu jàpp ne boobu mooy ñaareelu mandat am teg ci it mooy njeextalu mandat am kàddu sax moom njiitu réew mi daal dina ko dëggalaat gannaaw téere mu dig livre bi mu génnee duppee ko Sénégal au cœur buñ sukkandikoo ba tey ci firnde yi nga xam ne moom la njiital mouvement pour l'intégrité le mérite et l'indépendance Mimi 2024 daal di fësal ci noonee moom Aminata Touré ci ay njeextalu kàddoom mu dellu di ñaawlu tuuma yi nga xam ne njiitu réew mu ngi koy jël di ko teg ci ñenn ñi rawatina ñi ne ci kujje gi doon ay kàddu tuuma yoo xam ne teguwul fenn op ak ñi naan peppe kale reefaan pépp dama koy dagg foofu ak DKR 221